waa Kaolack waa Kaolack ñooy dugg si noonu le coach Adjuma Diouf ndeysaan le coach Adjuma Diouf ak xale yi ndeysaan le coach Adjuma Diouf waa jéemaan ba la siyaar waaw neen yàlla nangu siyaar amiin yàlla may jéemaan noonu di waaje deuxième jour bi tey open bi ak individuel daal leen ñoom yëpp rek ak saa noonu la ndeysaan le phénomène Papa Ngane soox soox a ngi noonu l' de Kaolack ndeysaan ah le coach a ngi noonu Père ndaysan Raja ngi nonu, le capitaine de l'équipe le phénomène 120 vingt kilos xale yaa ngi internet ngi nonu ndaysan waaw l'équipe de Kaolack qui fait son entrée pour la deuxième journée Madi chor waxal way mustapha ngi nonu ah ndig mama ndig mama ndig mama l'entrée de l'équipe de kaoulak ndaysan finaliste 2023 drapeau du chef de l'État fii ci Saint-Louis du Sénégal nonu di le mot favori n'est jamais donné par hasard l'équipe de Kaolack finaliste avec l'équipe de Dakar qui fait son entrée fille ci stade ma waddu Saint-Louis du Sénégal mot favori nonu di